mooy euh, la clé euh, pour pour mën a delloosiwaat li nga xam ne moom mooy pêche bi fi mu nekkoon. waaw pour siwaat ko xam nga géej dafa am ay code. Mm-hmm. te code yooyu bu fekkee ni mënuñu ko xam ñun ñi nga xamante ñun ñi ñi fi nekk mënuñu ko xam ñun ñi fi nekk xam ko nañu jël ñu accompagner leen. yow dama mel ni da ngay place quoi. ñu wala ci ay conseil jël ci ay kii wala dara. waa non parce que boo toogee ne ñun ñoo xam ñu ne ba parce que c'est la deuxième fois nga koy wax bi ngay wax ba léegi. waa waaw donc mm. comme li ma la wax dama ne la géej dafa am ay code. Mm-hmm. code yooyu mu am tey ci bu ma lay jox ci exemple rek xam nga réew Maroc bi ñuy defar seen géej. Mm. dañ ko tëj dans deux mois wala trois mois. bi naar yi nga xamante ni comme ku mel ni Mauritanie bi ñu gisee ni ñooñu ñu def loolu ñoom it dañoo daw tëji seen i géej topp filaa boobu li tax ñu topp ko mooy bu fekkee ni da ngay daw ci code code bi ngay daw boo fa ñëwee war a jàpp jën boo xamante ni yaa ngi ko war a jàpp ci cinq mois bato bi ñëw mbaal ko ci semaine noonu boobu géej boobu géej na lay amee jën boobu géej du am jën te loolu tey lu lu lu lu pêche pêchu Sénégal ñàkk tey loolu moo leen ko xañ ba pare bateau yi dañ leen daan daggal bateau di licence euh, euh, licence de pêche yi bu leen ko joxee dañuy code bi leen wax ne leen yem leen fa duñ fa yem maanaam dañuy dañuy dépasser code boobu fi ñu leen yemloo mhm. jën yi nga xam ñoo war a jur Mhm. jën yi nga xam dañu war a jur mhm. pour dans un mois wala deux mois jën yooyu dañ koy mbaalaale buñ ko mbaalee dañ koy yàpp ci seen biir bato buñ ko yebee ci biir bato bi dañ koy tànn buñ ko tànnee bu ñu paree li ci des dañ koy tuur te mënoon nañ koo bàyyi ci géej gi mu màgg te mënoon nañ ko bàyyi mu màgg mhm. mën a am lu mu servi ci géej gi parce que yoos bo yoos bii ma lay wax nii. Mhm. fekk mi ngi jóg ci géeju Sénégal géeju Sénégal du amal jën. yoos bi mooy jën yu sew sew. jën bu sew mhm. parce que mooy topp jën wu mag wi mooy waral jën yi daan teer léegi nag ñu ne ñun loolu bëgg na ñoom ñu comprendre ko mhm. dégg naa ci léegi nga wax ni affaire affaire poste non non parce que nit ki tamit li mu jàng ci këyit dëgg na mais ki nga xamante ni daf ko maîtriser xam ko. kooku defe naa ni war nga ko mën a jël ci benn offre au moins nga ne ko soxla naa sa xalaat. da ngeen jàpp ne yéen gën a maîtriser ñoom. ah oui ah oui. ñoom ay experts am ay lépp yoo xam ne dañuy xalaat ci wàllum ndox ci wàllum jën ak lépp. xam nga maîtriser bi mooy lan. Mm. yow mi ko maîtriser di ci jànkoo sante ay conséquences bokkul ak ki nga xam dafa toog jànkoo ci ay biir yow yaa ko dund. yaa nekk sur ki nekk si le terrain ak ki jàng ci kër yi est-ce que mën nañoo yem. waaye mën nañoo liggéey ensemble. mottalante ensemble la ñuy liggéey. mottalante parce que kii bu ko jàngee ci kër kii jàng ko pratiquer ko yow ki ko pratiquer kooku dina bari lu mu la indi parce que chaque jour kooku moo nekk ci terrain. d'accord waaw man fi may ñëwaat mooy un peu.